Bulan Attends, attends qu'on soit la Francia. Merci. balaa ñuy commencé dars bi ñu am ko ndax euh, darsi yi day daw ci yeneen i chaîne euh, léeg-léeg caméra bi am na noo koy jëlee nit buy naan loxo ndey càmmoñ la lay féete yow càmmoñ ngay gis fekk ndeyjoor la loolu caméra bi moo koy def ñu bëri nag <laughs> woo nañ ma <laughs> di ma message oustaz bàyyil xel càmmoñ nga naanee waaye nag ci xar rek yaakaar naa ni Euh, amuñu sañ-sañ jàkkaarloo kamera ci xel di naanee loxo càmmoñ loolu dëgg fa yàlla ci mbooloo naam comme loolu caméra bi moo koy def caméra bi moom mooy euh, moom moo koy juutal ba yow booy gis càmmoñ ngay gis yaakaar naa même yenn seetu yi sax am na yenn seetu yoo xam ne boo ci taxawee euh, càmmoñ ndeyjoor bi càmmoñ lay féet ak yow càmmoñ bi ndeyjoor lay féet ak yow comme loolu ñu bàyyi ci xel ñu xam ni noonu la demee ñu dellu siwaat suñu mbind kashfu shubahat ànd ak cheikh bi Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah waxoon nañ ni cheikh bi rahimahullah ba léegi tuddagul lënt bokkaalekat ndax téere bi lu ko tax a jóg moom mooy indi ay lënt Aki dalilu bokalakati bokalakati dafa am luñuy sukkandiku di ci tektolo téere bi loolu ko tax a jóg yu ñuy tektolo ngir daganal seeni bokkaale mu koy tontu benn par benn ba léegi moom ci muqaddima bi la nekk ci introduction bi di la wax xaalu bokkaalekatu njëkk yi ak bokkaalekat yi lañu façon ak naka lañu menoon meloon ci ban anam lañu nekkoon ba loolu leer mu doogo nag dugg ak yow ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy lënt yi comme ba léegi ci loolu la nekk ci introduction bi la nekk naam comme mu ngi wax mu woy di wax yaakaar naa yéen ñëpp am ngeen page bi fekkee am na ku ko amul na ko mbokki envoyé envoyé naa ko ci groupe bi qaala almusannifu rahimahullah almusannifu mooy ki nga xam ne moom moo bind téere bi ki nga xam ne moom moo ko taalif moom moo ko bind mu ne ida taxaqaqat annahum muqirruuna bi haada mu bu fekkente ni leer nala la naññ ni ñoom lii dañ koo saxaloon ñoom ñan ak lan lañ saxal mooy ñoom bokkaalekat yi bu la leeree ci darsi yi jàll ni ñoom saxaloon nañu ni yàlla moom ay jëfam moom dong moo ci wéet loolu bokkaalekatu màkk yi dañ koo saxaloon ay jëfam ñoom dong yàlla dong moo ci wéet in nañ ay aaya ci alquran yu dul jeex yàlla borom bi subhaanahu wa taala di wax ni boo leen laajoon kan moo sàkk asmaan ak suuf dañ naan yàlla boo leen laajoon kan moo leen bind dañ naan yàlla kan mooy wàccee taw dañ naan yàlla comme cheikh bi leer na loolu ci ay aaya alquran mu leer nañ mu ne comme bu fekkente ni leer na la ni ñoom lii dañ koo saxaloon ñoom bokkaalikatu nekkoon makka wa annahu lam yudxilhum fi lislaam te saxal bu ñu saxal ay jëfu yàlla dong gëm ni yàlla mooy taw mooy dekkil mooy bind moomum safara moomum aljanna bu fekkente ni gëm loolu dong dugalu la ci lislaam dugalu la ci tawxid allazi daat ilayhi rusul bi nga xam ni mbooleem yonente yi ci lañ doon woote comme mbooleem yonente yi ci tawxid lañ doon woote amul benn yonente bu ñëw di woote ci safaanu tawxid amul loolu ijmaaw boroom xam-xam yi la ibnu taymiya rahimahullah toxal na ijmaa boobu dëppoo boobu ni mbooleem yonente woote wuñu ci leneen lu dul tawxid amul benn yonente bu ñëw di woote ci rafetal jikko di woote ci euh, rafetal dëkkandoo di woote ci saraxe di woote te fekk woote wul ci tawxid loolu amul benn yonent yonente yëpp seen woote benn la moom moo nekkoon tawxid wa daahum ilayhi rasulullah mu ne ginnaaw bi nga xamee ni nag bokkaalekat yi nekkoon màkk gëm bu ñu gëm jëfu yàlla dong dugalu leen ci lislaam loolu dong doyul mu dugal leen ci lislaam mu ne nag su boobaa waarafta di nga xam ni nag anna tawxid allazi jahaduuhu huwa tawxidul ibada su boobaa nag war na la leer ni tawxid bi nga xam ni moom la waa màkk weddi mooy tawxidul ibaada mooy wéetal yàlla dong ci ay ci ay jaam comme lii moo tax yàlla yónni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci waa màkk mooy dañoo weddi jaamu yàlla moom dong wéetaluñu yàlla dong ci ay jaamu dañoo bañ loolu loolu dañ ne déedéet gëm nañu yàlla mooy jëf mooy taw mooy dekkil mooy wërsëgal waye nak bu ñuy jaamu mom duñ ko ci wetal mom dong faa ñu jaamu walé hubal faa ñu jaamu walé lat faa ñu jaamu walé uzza faa ñu jaamu walé manat li nak motax yàlla yóndi yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy tawhidul ibada tawhidul ibada moy ban tawhid moy tawhidul uluhiyya uluhiyya ñu ko jëlé ci ilaah al uluhiyya ñu ko jëlé ci ilaah ilaah allah moom mooy yàlla mooy ku yàlloo jaamu comme ku yàlloo jaamu ku ñu war a jaamu loolu mooy uluhiya loolu mooy al ibada moo tax mu tuddee ko tawxidul ibada ibnul qayim léeg-léeg mu tuddee ko at tawxidul amali at tawxidul amali tawxid bi nga xam nu ci jëf lay aju ndax tawxidul ibada jaamu yàlla ay jëf la jaamu yàlla ay jëfla la léeg ne at tawxidul الطلبي القصدي léeg la ñu tuddee ko ak tawxidu talabi al qasdi mooy tawxid bi nga xam ne da ngay sàkku ay jaamu dafa am koy jaamu léeg-léeg ñu tuddee ko tur boobu noonu naam comme cheikh bi ne la boobaa nag arafta nga xam nag anna tawxid alladi jahaduhu tawxid bi nga xam ne ñoom abu jahl ñoom abu lahab ñoom walid ibnu mugira ñoom oqba ñoom abu talib ba ñu weddi woon moom mooy tawxidul ibada allazi yusammihi al mushrikuuna fi zamanina al itiqaad tawxid bii nga xam ni moom lañu ñu weddi muy wéetal yàlla ci ay jaamu mu ne bokkaalekat suñu jamono ji moom la ñuy tuddee al itiqaad comme dafa joxe misaal ci lu muy dund borom borom xam-xam léeg-léeg booy jàngale del joxe misaal ci li ngay dund del joxe misaal ci li nga xamante ni ñi ngay ñi nga jamonoonteel wala ñi ngay dundal loolu la ñu xam parce que ñoom tawxidul uluhiya ñu ko daan tuddee al itiqaad jamono moom bokkaalekat yi dañ daan jaamu seeni cheikh seeni sëriñ tuddee ko tuddee ko al itiqaad moo tax mu ne allazi yusammihi al mushrikuuna fi zamanina al itiqaad mu ne kama kaanu yaduuna allaha subhanahu wa taala leylan wa nahaaran mu ne ñoom dañ daan woo yàlla de dañ daan ñaan yàlla guddeeg bëccëg ñoom bokkaalekat yi dañ daan ñaan yàlla guddeeg ca ñoom daan na jaamu yàlla ñëwuñu rek di jaamu xërëm de ñoom accepté nañ jaamu yàlla waaye nag lan mooy muskila bi muy mooy summa minhum nag am na ci ñoom man yadul malaikati malaikata am na si ñoom ñoo xam ne dañuy ñaan malaaka yi maanaam jaamu yàlla cër bi nga xam ne yàllaa ko moom jaamu yàlla moom dong dafa am ci ñoom ñoo ne dañ koo jox malaaka yi li ajli salahihim nee mala malaaka yi dañoo baax wa qurbihim min allahi azza wa jalla te dañoo jege yàlla kat yépp sel lay lii la kii dama koy jaamu parce que dafa jege yàlla ma naabuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ñëpp nag kat jamono abu jahli ñoom abu jahl wala ci jamono ñoom nuux ba ñuy jaamu ñoom wadda suwa yaxuuta yauq ba si jamono jii bokkaalikat yëpp ñoo bokk benn lay tey demal Sénégal koo xam ne day bokkaale nga tere ko ko lu lay njëkk wax mooy bokkaale wu ma mais daf may jagale ca yàlla seytaane foofu la leen di naxee kii daf may jagale ca yàlla loolu mooy benn bi ñaareel bi tamit mooy kii daf may romb mu ne li yashfa'u lahum ngir ñu romb leen wa min duunillah ma la yadurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluuna haulaai shufaa'una inda allah jaamu ay nit yoo xam ne yu tële la dañuy jaamu ay xërëm yu tële jaamu loo xam ne du dégg du gis du wax lan mooy lan mooy seen lay ma na'buduhum illa li yuqarribu ah, ah, ah, haulaai shufaa'una inda allah ñii ñoo ñuy ramm ca yàlla te waxoon nañu condition ramm dars bii passé ñett la kan moom koy fàttali naam non benn condition euh, ki ñuy naam. beneen mooy surutu shafaa ngir nit ki romb ak ñu romb ko ñetti condition yi faaw mu lu si njëkk mooy kay romb mook ku ñuy romb yépp faaw ñu dee ci tawxiid nit ki munoo dee ci di woote ni yow yàlla nga ci di woote ni am cëru yàlla di woote ni yow doo faatu ruubu jaam mu ngi say loxo laa qaddara laa nga dee ci loolu ñu ne yow rambukat nga naka ngay rambu deewoo ci tawhid da ngaa dee ci nit ñi bokkaale la da ngaa dee ci di jël cëru yàlla di ko jox mbindeef comme yow munoo rambu ñaareel bi kañuy rambu aussi faaw mu dee ci taw tawhid munoo dee ci jëbbal sa jëmm keneen ku dul yàlla dee ci dëkkee di waat ci keneen ku dul yàlla dee gëm ni alaaxira am na ku fa am cër keneen ku dul yàlla ba pare nga bugg ñu romb la comme charte boobu condition boobu teggeeku na la lan mooy dalil bi ci ku deewul ci taw tawxid kenn du ko romb te du romb luy dalil mooy dalil ku deewul ci tawxid doo romb duñ la ramu Why, I'm not Dalil? I'm not Dalil. Abu Talib, Papa bu you yonente bi salaa sallam papaam bu ndaw moo faatu mu bëgg koo romb loolu romb la ñaanal yonente bi romb la waaye yàlla say loxo maa kaana nabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walaw kaanu uli qurba min baadi maa tabayyana lahum annahum ashaabil jahim abu taalib mi bokkaale kat la ak la Bokale baax baax nga jëlee ci ni bokkaale kat Rafat lu gaay di wax sénégalais di wax rafet xol la yalla di xol kan mo gëna rafat rafet xol abu talib xolam bu rafet bu ko jëmele won ci ku gën ci nit ñi moy kan yonente bi sallallahu alayhi wasallam koku la doon défendre koku la doon aar koku la doon jappalé ba mu nekké xalé yar ko yar bu rafet bëggoon ko lolu kan mo gëna rafat rafet xol abu talib waaye ànd ak ci bokkaale la dee ci jaamu xërëm la yonente bu ko ramm ci ñaanam yàlla ko wàccel see loxo ko léeg-léeg gars yi bu ñu lay nax naan la rafet xol xol bu rafet la yàlla di xool loolu ñu ko indi xalaatin yooyu mu ngi jóge ci sataniste yi muy franc-maçon yi ñoo la bugg a wax ni jaamu yàlla du dara rafet xol moom mooy lépp tey moom la ñuy jël ay jullit ngay gis message boobu la ñuy véhiculer du ñu julli du ñu woor bu dee jigéen sol lu bon doo muuru nga teg ko ci yàlla xol lay àtte rafet xol macha allah loolu dalil la loolu benn dalil la buy ku dee ci bokkaale doo ramm te kenn du la kenn du la ramm tax Abu Taal daa dee ci bokkaale moo tax kenn du ko ramm ba doomam bi nga xam ni moom la yar munu koo ramm muy ku yàlla yoon muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam beneen dalil buy wane ni ku dee ci bokkaale doo ramm kenn du la ramm ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا رب جغل كوي بوكال من جغل لنن لولو بوكال كوم لولو لير ني كيغا خامني دا فا ديتي بوكال كين دوكو رام داخ كين دوكو جغل كون دول جغل منو رام اها امنا بنن ايه اها ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك سو بوكال وون داني ماب سي جف ku jëfam màbb du romb duñ ko romb parce que kuy romb mooy ku baax kuy romb mooy julit bu baax mom moy romb julit bu baax moy romb ñett ñi ñoy romb yonente bi malaaka yi julit yi nga xamni dañ daan def digle yi di bàyyi tere yi ba dee ci loolu yonente bi salaa sallam nee na shafaat malaa'ika wa shafaa nabiyyun wa shafaa mu'minun, wa baqiyat rahmatu arhamir rahimin nee na malaaka yi dañuy ramm yonente yi dañuy ramm jullit ñi dañuy ramm mooy yan jullit ña daan def digle yi di bàyyi tere doonte du charte ñu indi yu ñu sopp di moytu lu ñu sib du charte am na borom xam yu dugal charte boobu déedéet ñooñu mooy assaabiquuna ilal xayraat waaye ñi nga xamante ni ñoom dañ daan def digle yi bàyyi tere yi kooku mooy waliyu kooku mooy wala yu kooku mooy ki nga xam ne day ram donte euh, saxoowul di def naafila yu ñu sopp ak di moytu lu ñu sib fekkee def di lay bàyyi tere kooku day ram loolu mooy leer comme aay yi yëpp lu leer la ci di fësal di wane ni bokkaale kat du rammu te kenn ko te kenn du ko te kenn du ko ram euh, naam loolu mooy bu njëkk ñaareel bi mooy kay rammu day fekk yàlla digal ko kay rammu day fekk yàlla digal ko du caagan yow da ngay dee rek nga xool sa njaboot ku la neex wala xool say taalibe da nga leen di yàlla moo lay digal lan mooy dalil bi man zal lazi yashfau indahu illa bi iznihi amul kenn kuy ramm lu dul ci ndigalu borom bi subhanahu wa kenn kuy ramm lu dul ci bi comme yow mii di ramm yàlla moo lay jox ndigal nekkul yaa am sañ-sañam déedéet nekkul yaay ñëw rek yowmal qiyaam toog sam njoowaan di njoowaanu naan aca aca ga yi ñëw leen ku yor sant diw ñëwal waaw ka ma daan jox addiye ñëwal ka ma daan raamal ñëwal ka ma daan sukkal ñëwal du nooru de sama gaa yi ku leen wax loolu da leen di nax yàlla moo koy digal te ci kaw digal bi day am charte bu ko jiitu mooy mu am tawxid su amul tawxid mu ne ko koo xam ne day taxaw fësal tuutil yàlla ak yonentaam yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne ma romb ko ne ko vif bokkaale yu rëy yooyu da wuji sama sëriñ nga yaakaar ci kooku mu romb la naka lay romb bokkaale kat la ay jëfam màbb na mënu la romb euh, naam ñetteel bi mooy kañuy rabu aussi faaw yàlla gërëm ko lan mooy dalil bi wa la yashfauna illa liman irtada duñu rammu lu dul ku ñu gërëm duñu rammu lu dul ku ñu gërëm comme ku ñu gërëmul ku deewul ci tawxid ku ñuy gërëm mooy ku dee ci tawxid waaw gërëm lu ko jiitu mooy dee ci tawxid ndax tawxid mooy yàlla njëkk gërëm soo ko amul moom yow moom bokkatoo yow génn nga comme lii mu leer nañ ci bokkaalekat yi ñu xamale ni ñoom seen régle bii ñuy deme règle boobu dafa wóorul ndax ñoom jàpp nañ ni ki ñuy jaamu dañ koy jaamu ndax moo leen di ramm waaye dañoo fàtte ni kay ramm ak ku ñuy ramm faaw ñetti condition yi daje ci moom naam mu ne aw yaduuna rajulan saalihan wala ñuy woo nit ku baax mislal laat misla laat laat mooy kan lan moo tax bokkaalkat yi di jaamu laat dafa ne misla rajulan saalihan wala ñuy jaamu ku baax parce que bokkaalkat yëpp lool la ñuy wax kii dafa baax daf may àggale ca yàlla kii dafa baax te lu gën a yéeme ci bokkaalekat yi daabitu daabitu mbaax xamuñu ko maanaam fu ñu natte mbaax lan mooy mbaax xamuñu ko dañuy xëy rek gis seen i maam gis sa maam di màggal kenn nga ne ku baax la ñu ne kii ku baax la rek nga ne baax la wala daa jàmbaarloog yi rek nga waa kii ku baax la mais est-ce que xam nañ luy daabitu mbaax pour ñu ne nit kii ku baax la ban daabit fan lañ koy teg nit kii baax la lu si njëkk mooy dañu xool ba xam est-ce que daawul bokkaale est-ce que da daan wéetal yàlla loolu benn ñaar est-ce que muy daan appliquer charia loolu ñaar la ñett est-ce que mu daal daan moytu lu bon lii mooy daabitu mbaax waaye mbaax léegi dañ koo teg ci ay lu fi maam yi wala ñu teg ci ay sant wala ñu teg ko ci ay leneen ak leneen tayib laat mooy kan naan euh, mhm. mhm. laat mu ngi jógee ci baatu yalittu kaana yalittu lahum sawiq ñu tuddee ko laat laat avant l'islam xam nga arab yi amoon nañu aj avant l'islam arab yi xamoon nañu aj dañ daan aj dañ daan def yu mel noonu dañ daan dañoo amoon yenn xeetu jaamu yàlla yàlla mu ne maa kaana solaatu min al bayt illa mukaan wa tasdiya comme loolu day wane ni ñoom daan nañu wër kaaba daan nañu def yenn xeetu jaamu yàlla léegi ujaaj yi bu ñu jóge woon feneen ñëw màkka laat moom moo leen di dalal ku siiwoon la ci di teral ujaaj yi di leen jox lekk di leen jox naan di leen teral di leen dalal ci ay bërëb yu baax mu nekkoon nit ku baax dem ba nit ñi xamee ko lool ba mu faatoo moom laat nit ñi ne ah nañ dem ci palaasam di ko fàttaliku dañ dem ci place am di fataliku, ñu dem di fataliku mujju gi ñu dem sax ba di barkelu ci bàmmeelam bay place bu mu daan tok dem ci bàmmeelam mujju gi ñu daal di koy jaam moo ibnul rahimahullah waxoon nañ leen ci ighasatul lahfan neena bokale sababam ñetti la kan kan momay fatali dafa naa dars kashfu shubuhaat bi passé lañ ko waxoon mu ne bokkaale ci ñetti sabab bii lay jógee alxulu ëppal ci bëgg nit benn naam mhm. ëppal ci ci roy non day dugg fii rek mooy xuluwu fi saalixiin xam naa sedd bi moom moom métti ko ngeen fàtte jàpp leen ko jàpp leen ko Ibnu Qayyim nee na bokkaale ci ñetti sabab yi lay jógee bu si njëkk ëppal ci ay nit ñaareel bi mooy ëppal ci ziyaara nit ku baax ay bàmmeel ñetteel bi mooy statue yu ñuy yàttal di ko defaral ay nit ñu baax ndax bokkaal yëpp ci lii lay jóge ëppal ci ku baax fréquenté ëppal looy fréquenté bàmmeelu ku baax loo koy ziyaara ñetteel bi jël ay nit ñu baax defal leen ay statue te laa shakk lu Ibnul Qayyim wax ni da ko da ko istiqra ci boo xoolee bokkaale foofu njëkk a tàmbale diggante aadama ak noonu dix at dix siècle dix siècle yooyu yëpp amul woon bokkaale lu dul ay nit ñoo ñëw ay nit ñu ay wadda suwaa ay yaxuus ay nit yu faatu ñu defal leen ay dem seeni bàmmeel defal leen ay stati ñu commencé di leen commencé di leen jaamu comme jàppal ñett yi bu ko fàtte ëppal ci ay nit ñaar ëppal looy ziyaara nit ku baax jàpp ni ku baax la di ziyaara bàmmeelam ñett mooy istat yi nga xam ne dañ koy defaral ay nit ñu ay nit ñu baax ena eh, kooku moo nekkoon laat aw nabiyan wala ñuy jaamu wala ñuy jaamu ab yonent misla misla isa misla misla isa mu ne su boobaa nag boo xamee lii boo xamee ni bokkaalekat yi ñoom lii mooy seen problème suñu problème ak bokkaalekat yi wala cheikh bi ña muy waxal wala waa Makka moo nekkoon lenn mooy ñoom dañoo lànkoon wéetal yàlla ci ay jaamu moom dong dañ daan julli di jullil xërëm yi dañ daan ñaan yàlla di ñaan xërëm yi dañ daan waat ci yàlla di waat ci xërëm yi dañ daan jébbalu ci yàlla di jébbalu ci xërëm yi loolu moo nekkoon seen problème léegi mbokk yi ma laaj leen ndax amul différence diggante bokkaalekat yi nii cheikh bi tudd ak ñun bokale ba nek suñu dëkk wala ñun bokale yi nga xamne mom lañu xam kan moom may wax farq bi naam cheikh bi ah dañu gëna ëpp dañu gëna bari non légui fi dañu ne lu cheikh bi expliquer moy mom bokale kat yu muy wax ni ñoom amuñu woon problème ci yàlla moom moo sàkk yàlla moom moom nit ñi yàlla mooy dekkil yàlla dong mooy taw moom moom asamaan moom moom suuf amuñu ci woon problème seen problème moo nekkoon ñoom dañ ne jaamu yàlla yi moom mënuñu koo jox yàlla kese dañ koy bokkaale ak xërëm jaamu yàlla mooy lépp loo xam ne dañ ciy sàkku tiyaaba julli ñom dañ daan julil yàlla di julil xërëm bi dañ daan waat ci yàlla di wat ci xërëm dañ daan ñaan ci yàlla di ñaan ci xërëm bi léegi moy mooy seen différence ak ñun kat yi nga xamne moy jamono ji wala suñu dëkk wala wala aha duñ ko saxal duñ ko saxal aha te comme jëlee doon nañ saxal tawxiidul rububiyya Aha, tawhidul rububiyya moy lan wax ko mu leer wéetal yang ci moomeelam wéetal yàlla ci moomeelam loolu jamono jëlee yépp mu ci la daal nañ ko aha aha ñu jamono di ñu nekk ñoo xam ne ñu mhm. jël seen cër yoo xam ne ko mhm. ñu koy jox ay nit wala jox ay mhm. ma sha Allah ma sha Allah naam ya. aha nañ wax tamit ne euh, ñu njëkk ña ñi jàng bokkaale mën nekk ñoo ni ñu baax lañ ay nit ñoo xam ne ñu baax mhm. mhm. la allah fiik naam cheikh bi. Mhm. place yàlla ñee dañ jaamu yàlla ak leneen. ak leneen mais ñi moom dañoo bàyyi yàlla sax di jaamu di jaamu leneen li bàyyi yàlla naam jamil sax kalaamu saxiix naam mhm. naam naam luy dalil bi luy dalil bi bu ñu ci gaal gi mu am problème ñu ragal a dañuy woo yàlla dong bu ñu commencé نعم ما الدليل ف... ما شاء الله بارك الله فيك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الحدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون بني نكي تي قال جي تيت فقي دي جوك نرغى للب نينا يا الله يا الله ويا الله اي يا الله يا كير اي يا الله يو فلما نجاهم نك بني جنة إذا هم يشركون comme suma déggé sen wax sen wax da ngeen def da ngeen différencier entre bokkaalekatu njëkk yi ak bokkaalekatu jamono ji ñuy gis diko gis suñu dëkk ci ñett bu si moy mooy bokkaalekatu njëkk yi ñoom sen bokkaale yàlla ci ay jaamu kessel woon ñoom dañ daan sujootal yalla di sujootal xërëm bi dañ daan waat ci yàlla di waat ci xërëm bi waaye nag jëfu yàlla amuñu ci werante yàlla moo sàkk asamaan moo sàkk suuf yàlla mooy yàlla moo bind géej gi mooy wàccee ndox non mooy wàccee taw amuñu ci woon problème waaye nag bokkaalekatu jamono jii dañoo gëm ni sax am na ñeneen ñu sàkk asamaan ak suuf dañoo gëm ni am na ñeneen ñuy taw ba ñu nekkee xale lañ daan boroom na taw mu taw boroom na am mu am li Abu Jahl da ko daaw ko da ko da koo a wax sañu ko woon wax waaye ñu dañ koy dégg borom jamono borom jaami kom xoolal différence bi comme ñii seen vocal moo gën a yées ñii ñaar yëpp lañu boole ñaareel bi mooy bokaalekatu jamono ji yu njëkk yi bokk dañ daan bokkaale ci ay nit ñu baax ku baax ku daan julli ku daan woor ku daan teral gan ku daan def lu baax ci kooku lañ doon bokkaale waaye ñun bokkaale katu jamono ji ci ay nit yoo xam ne ay kàccoor lañu woon koo xam ni dañ la naan daawul julli daawul woor koo xam ni takk na lu ëpp ñeenti jabar koo xam ni day naan sàngara naan meew la ci ñooñu lañu bokkaale waaye bokkaale katu njëkk yi sañu ñu woon bokkaale ci kàccoor beneen mooy bokkaalekatu njëkk yi dañu daan bokkaale ci nit ku am xel wala sax ci loo xam ni du dara ñoom ñoo ko yàttal seen bopp mais bokkaalekatu jamono ji dañuy bokkaale sax ci ay dof ay nit ñoom dañoo dof koo xam ne àndut ak xelam ba dañ koy teggil jaamu yàlla ci seeni wax parce que àndut ak xelam nga gis ay nit topp ko di ko bokkaale ba bàyyi jaamu yàlla. <laughs> dégg ngeen lu wax mu ne Pakistan dafa am benn waay bu xam ne dafa dafa dafon nu mu tudd nanga baab day def yaramu neen waaye ànd ak loolu dañ ko daan jaamu naan mooy yàlla subhanallah subhanallah ñetteel différence bi mooy katu njëkk yi ñoom bu ñu nekkoon ci tiis nekk ci xat-xat xam ni fii yàlla dong moo fi sës dañ naan woo yàlla waaye bokkaalekatu jamono ji moom la gën a nekk ci tiis gën a nekk ci xat nekk ci hôpital di waaj a dee ñu lay waaja opeere wala ngay sukuraat ngay woo sëriñ bi comme ñetti différence yi moo nekk ci bokkaalekatu njëkk yi ak bokkaalekatu bokkaalekatu jamono ji wallahu mustaan أسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل ñu jeexal benn page bi mu ne su boobaa nag cheikh bi li yëpp benn introduction la pour nga am benn benn mafhum ci li nga xam ne moom la bëgg a wax mu ne wa arafta su boobaa xam nga أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا sharika la su boobaa nag nga xam ni comme yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa xeex ak ñoom ci xare Badar ak Uhud ak yu mel noonu ci tawxid bi ci shirk bi ban façon shirk moy shirk bokkaale ci ay jaam bañ a yàlla ci ay jaam moom dong kama qaala taala comme ni ko yàlla waxee wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada jàkka yàlla la ñeel yàlla jumaa yi yàlla la ñeel jamu yàlla yi yàlla dong moo ko yelloo bu leen ko jox keneen ku dul ku yàlla looy déggee ci aaya bi wa anna al masajida lila yan yan atte ga ci mën a génne Thank même même atte bi su nekkul ci tawxid ban atte nga mën a génnee ci aaya bi wa annal masaajida lillahi jàkka naam ngam ni jàkk amul sant amul fuñ koy askanale comme li ngay dégg tey ci jàkka yi murit laayen tijaan jàkka yi ibaadu jàkka yi non non wa annal masaajida lillah ak ban atte nga ci génnewaat mooy jàkka aha ginnaaw julli waaw ñu fay ñu fay jàngale ñu fay ñu fay jàngale ak nekkul julli julli kese jaamu yàlla yu bëri na ak lan ñaan naam naam naam naam nga dégg ci jaabu yàlla kenn du ko jox keneen ku dul yàlla ndax jàkka yi boo fa demee pour jaabu yàlla la yàllaa ko moom naka nga koy joxee keneen ak ban àtte nga ci génnewaat. Mhm. dafa ne falaa tad'u ma'a Allahi ahada te ñaan jaabu yàlla nga déggee ci am na ay sunna yu bari yoo xamante ni. ay sunnay nangu ñaan ci bir jàkk wala mu ne falaa tadu bu len ñaan keneen ku dul yalla comme bir amna ay sunna yo xamni ne dafa sax ay ngeeneel ci ñaan lu ci melni digënta ñaari noddu dañ fay dañ fay nangu dañ fay nangu ñaan moo mu ne bo len fay ñaan falaa tadu ma allah wallahi ahadan nga déggé ci encore mom moy daganal bu islaam daganal ñu bëril ay jàkka wa annal masajida lillah jàkka yi yàllaa ko moom te jàkka pluriel la masajid comme dégg nga dégg ci daganal wala islaam sopp bu mu ñu amal ay jàkka nga dégg ci tamit bëril ay jàkka tamit loolu yiw yu bëri la wa annal masajida ñeel jàkka yi lillah naam mu ne wa qaala taala yàlla waxaat lahu daawatul xaq walladina yaduuna min dunihi la yastajibuuna lahum bi cheyin yàlla mu ne moom mooy ku ñu war a woo ci dëgg ñi ngeen di woo wuuteeg yàlla mënuñu leen tontu ci dara comme li leer na ki ngeen di woo ku bokkut ak yàlla kooku mënu leen tontu ci dara moom mooy ki nga xam ne moom la ñu war a woo ci dëgg mu wuyu ñeneen ñi mënuñu leen tontu ñi ngeen di woo ci loo xam ni yàlla doo nga ko mën nit ki mun nga ko woo ci lu mu mën mun naa toog fii ma woo ma woo sekk ma ne ko yaa sekk mu wuyu ma jottali ma lii sekk dégg na ma mais naka ngay toogee di woo ab sëriñ boo xamante ni yow yaa ngi Italie sëriñ baa nga Bawol wala Kajoor wala Saalum nga koy wo yàlla mu ne kooku du la wuyu lu tax du la wuyu leeral na ko ci beneen aaya in tadoohum do yasmau duaakum boo len wooyee duñ leen duñ leen dégg moo tax yàlla mu ne kuy woo keneen ku dul yàlla ci koo xam ne du ko dégg kooku moo gën a réer kooku ak ak xelam dafa nax mu ne wa man adallu mimman yad'u min dunillah ana kan moo gën a réer koo xam ne day woo keneen ku dul yàlla kooku ku ko gën a réer amul kooku réer bu sori la la réer nooy woowee ko dañ ko suul ci bàmmeel nooy woowee koo xamante ni yow yaa nga Europe moom mu nga Afrique naka la lay déggee moo tax yàlla mu ne yow yaa gën a réer wa man adallu amul kenn ku gën a réer kooku min man yadoo min dunillah man laa yastajibu lahu ila yawm alqiyama ci koo xam ni du ko wuyu fii ba yawm alqiyam du ko wuyu fii ba yawm alqiyam leer na aaya bi loo ciy déggee ana kan moo gën a réer koo xam ni du ko wuyu fii ba yawm alqiyam yaakaar naa waxoon nañ ko fi radd la ci bokkaalekat yi nga xam ni nee nañ lu yàlla tere mooy jaamu lu amul xel jaamu chose mais bu dee jaamu nit la nit ku baax amul problème aaya bi da leen di rand wa man adallu mimman yad'u min dunillah naam man yàlla dafa ne man ana kan moo gën a réer koo xam ne day woo keneen ku dul yàlla man laa yastajibu lahu ci koo xam ni du ko wuyu te man duñ ko utiliser lu dul ci ko am xel bu nekkoon ay xërëm la danaan maa maa laa yastajibu lahu ila yawm alqiyama نعم mu ne su boobaa nag lu ñu fi wax yëpp wata xaqaqa dina la leer anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonente bi sallallahu alayhi wasallam qaatalahum dafa xeex ak ñoom ñoom ñan bokkaalekat yi li yakuna diinu kulluhu lillah ngir mboolee mi diine ñu jagleel ko yàlla moom dong wa du'aa kulluhu lillah mboolee mi ñaani ñu jagleel ko yàlla dong wa zabxu booleemi rend yi kulluhu lillah ñu jagleel ko yàlla dong wal istigaatha xettaliku yi kulluha billah ñu defal ko yàlla dong wa jamiu anwail ibadati kulluha lillah ak mbooleemi jaamu yàlla yi defal ko yàlla dong kese comme gis nga comme nee na la yonente bi lii moo tax yàlla yónni ko mooy jaamu yàlla yi ñu bañ bokal bokkaale yàlla wéetal ko ci mu ne wa anna qasdahumul malaika te ñu xam ni jaamu bu ñuy jaamu malaaka yi wal anbiya ak yonente yi wal awliya ak nit ñu baax ñi yuriduna shafaatuhum ñu ne ñii kat dañoo bëgg ñu romb ñu wa taqarruba ila allah ñu jegele ñu ca yàlla bi zalika huwa allazi ahalla dimaahum wa amwaalahum seen pas-pas bii ju fas jàpp ni malaaka yi dañ leen di jaamu pour ñu jegele ñu ca yàlla wala ñu romb ñu ah تمنع فن وعرفت أن نعم وعرفت وعرفت نعم أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخل لم يدخلهم في الإسلام نعم سو boobaa nga xamni gëm buñu gëm jëfu yàlla dong muy rububiya dugalu len ci ci l'islam comme loolu leer na mune wa anna qasdahum al malaika wal anbiya ak jaabu buñu jaabu malaika ak yonentay awil awliya wala waliyi ويريدون شفاعتهم ينا دانيو بوغ ني رامو ني والتقرب الى الله دانيو بوغ ني جاغال ني تا يالا بي ذلك تي لولو هو الذي احل دماءهم لولو مو دغانال سيني دريت با يونتو صلى الله عليه وسلم خيخ اك نيوم تا بدر واموالهم اك سيني علل دا خيخ بو دغاني رك جيل علل داي دغال خص قائد مو فو خيخ اك جوليت فو خيخ اك يفر دغاني jambar lu moom tour de retam fumu dagane rek jël alalam dagal naam mu arafta su boba na nga xam hina izin at tawhid allazi daat ilayhi ar rusul boba di nga xam nak ban tawhid la yonente daan wote su boba nak li bu lere rek dina la leer ban tawhid la yonente don doon focaliser wu ban wetal yàlla ci ay jaamu wa aba an al iqraari bihi al mushrikuun te bokale kati bagn ko saxal lànk ne duñ ko saxal ñu yam fi wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad amin iyakum sallallahu ilaykum جزاكم الله خيرا naam naam. léegi comme chef li wax ne euh, monsieur Kounay yi jamono. Mhm. ñu doon wax ataqarrub ak euh, shafa ñoom i'tiqaad lañ ko tuddee. Mhm. mais i'tiqaad boobu ñu ko tuddee ñoom dañ nekkul ñoo ko moom tamit parce que i'tiqaad ahlu sunna wal jamaa ñi nga xam ne duñu bokkaale. wax mhm. dañ koy dañ koy jëfandikoo. Mhm. mooy al aqida aqida mooy lépp lu ñuy fas moo xam lu ñuy fas loolu baax na walla baaxul loolu mooy aqida bu dee ci sunna nag mooy lu ñuy fas fas mu jugee ci manhaju ahlu sunna wal jamaa mataar est-ce que doo dem tàngal ko euh, naam comme <coughs> ñoom itiqaat boobu itiqaat boobu noonu euh, ñoom dañ koy wax léeg ñu namm ci sax mooy pas-pas ba ñu am ci seen sëriñ yi ci seen suyuux mais nekkul pas-pas boo xamante ni ñoom dañ ko am muy tawxiid bu leer wakaalikat ci jamonoom loolu lañ ci namoon loolu lañ ci namoon naam Seck yaa mm-hmm. ngi formal dagan na nga wuyu téléphone ci biir jàkk dagan na nga toog fekkee du waxtu julli du waxtu nodd waxtu noddu sunna bi moom mooy nga toppaat ci noddukat bi lu muy wax waxtu julli tamit sunna bi mooy julli mais lu ci bi mën nga waxtaan ku la woo téléphone ak yu mel noonu ndax jàkk moom lu bari dagan na fa dagan na lekk biir jàkk dagan na fanaan biir jàkk dagan na nelaw biir jàkk su boobaa waxtaan tamit biir jàkk dagan na lu fay tere mooy njënd ak njaay ci biir jàkk naam naam naam bismillah Mm-hmm. Mm-hmm. en tout cas cinq heures waxtam mu ngi jeex bu jant bi soowee fajar bi su jant bi fenkee jant bi mooy julli suba day wax waaw mhm. non différence boobu xaw na bëri tuuti xaw na kii tuuti bu nekkoon ay six heures vingt vingt cinq mën na nekk inna solaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta différence boobu day xaw a day xaw a bari tuuti mais bu fekkoon ay cinq minutes a des wala yooyu loolu mën na nekk a seet dégg day dagan xataa lu gën a wër mooy ki nga xam ne sax nit ki euh, na auzu dafa juum moy ci ben soxna su ko bëggee takk mën na ko takk lu lu gëna wër amma di wax ni du tak ki nga xamni mom la moyal ci erreur lool amul dalil bu dëgër waaw nah, koku dagan na dagan na mu seeg moom alam jazakum khairan